nen ci 77 810 90 90 salaamaaleykum. maaleykum salaam. sëñ bi na ngeen def. waaw ñëw. sëñ bi euh, fa ñu woowee. waaw actuellement fi yaa ngi doxal. waaw ñu ngi nii. Euh, li may wax ci yi. Mhm. maanaam par exemple fitna kenn du ko yow. Mhm. su ma leeree ni bu su ma ko defee ay problème day jur. Mhm. est-ce que jotul bàyyi ko. Uh-huh. maanaam par exemple pour réew mi a am jàmm. Uh-huh. ndax boo gisee am na ñoo xamante ni ñu demoon seen war a nekk liggéey. Uh-huh. mënuñoo dem. am na si ñoo xamante ni dépense tey rek waruñoo liggéey. mënuñoo dem seen bopp la toog. réew mi ñett am na ñoo xamante ni pour maanaam ñu toog ba nga xëy a lekk. en plus que tamit problème yi bëri na. léegi bu fekkee mbir mu demee na nii est-ce que jarul ñu bàyyi mbir mu tedd. ah ba yeneen dund jamono ñu am yeneen ñu koy war a lijjantee lu dul nii. parce que maanaam période boobu ñu ne am na solution. parce que ah, réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk kii kenn ku ni da ngay xëy nekk jàmm. xam nga. Ah, am réew liggéey koy doxal mhm. xam nga nga liggéey ay at benn jour ay nit jaar fa yàq ko néew koy kesel mais ko comme que ñoom ñëpp mu am te lu koy indi da war a jël tegtalee à côté mhm. su fekkee lu mën a nekk la su fekkee lu mënta nekk la ñu xool leneen luñ fa war mën a mujjante mhm. ah man de ci loolu laa gisee d'accord waaw di jégalu nag kàddu yi suñu ci waxee lu sax. amul problème amul problème ñu ngi lay ñu ngi lay jaajëfal merci merci merci kàddu yi rafet na euh, Abdourahmane Ba itam maa ngi lay jaajëfal yàgg euh, Mbaye euh, Diagne def United Mamadou Daax Baye Diallo Abdourahmane Ba Dabax Gaye maa ngi lay jaajëfal <laughs> Dabax yaa ma merci Nafa TV maa ngi lay jaajëfal itam yàgg Simpo Kasal Sim Simpo. Kalas TV ak euh, Lahat Diagne. xaalis salaamaaleykum ku nekk maa ngi ziar. Moussa Sarr itam maa ngi lay jaajëfal sëñ bi na ngeen def. foo ñu woowee. maa leen woowee Saint-Louis. naka waa Saint-Louis. ñëpp ñu ngi si ci waxtaan bi. waaw ñoo ngi ciy waxtaan. Mhm. Eh, fan yii ñu manifesté wu. leen di conseil. nañ dem liggéeyi. gis nga nguur gi ak yi. ñuy dem rey seen bopp ci àll bi da koo jarul sa waajur boo ko aaree nga bëgg koo teral da ngay dem liggéeyi mais affaire ñàkk fay dossier bi xamante ne kenn xamul dossier lan la guddeeg bëccëg ngeen ciy reen bi ngeen di perdre seen temps te képp ku jël bu nit tey yow dootul xamat da lay romb fi du la xool sax nga dem ngay dee ci àll bi nga lool say lool say mbokk loolu da koo ñun ñëpp ay Sénégalais la ñu bëgg nañu Sénégal gëm nag ñu ñuy def nii loolu fajul fajul affaire bi ñu nga nguur kenn du xeex que nga xeexal moom muy biir këram tëdd mu jël njabootam mu yóbbu leen bitim réew wala mu yóbbu leen seenam dem léegi nag yow mi xamante ne yow si taw yow nag doo dara say waajur lekk ñu naanuñu nga nekk ci télé xeex bu dégg bëccëg ñu la fay rey wala ñu la ñoom ngay ñoom ñooy volontaire alal. di ci def. loolu da koo jarul. dañ koo jarul ñoom. am na solo. comprendre nga depuis démb ba léegi ñaari doomu aadama ay bakkan ñoo ci rot. ñett. ah ñett nit mais est-ce que ñoom xam nañ lépp est que xam nañu est-ce xam nañ seen parent kon nag nañu xal yi nañu nañu nañu delloo seen xel yi ñu dem liggéey ñu bàyyi seen li ñuy def lii baaxul. lépp luy yàq ci biir réew mi seen alal la ñu yàq. d'accord ba pare seen parent yi tamit la ñuy loraat parce que yu nga oto yi ñu yàq nii ak Auchan yi ñu yàq nii. Mhm. lépp ci suñu ndodd lay delluwaat parce que facture ndox yëpp lañ ko tiirewaat ñu delloo ko waat ci affaire bi ah nit ñi nañ waxtaan ak seen door yi ñu waxtaan ak seen seen seen seen jamono bi ñu bàyyi li ñuy def nit lépp loo fi yàq day sa alal nga yàq alal bi ñu yàq bi ñoo ci jëriñu ñoom jëriñu si dara ñun ñi baatu ñoo ci jëriñu parce que station yi ñu lakk tey. Mhm. ñaata Sénégalais ñoo fay fay di liggéey foofu di daan seen doole. Auchan ah. yi ñuy yi ñuy tey. Mhm. ñaata Sénégalais ñoo fay xëy seen doole. Mhm. ñu teral seen waajur. ah tey taal leen tey yàq leen tey ñaata Sénégalais doomu Sénégal lañ fa yàq lañ fa yàqal. ah doomu Sonko xeexul xulóowul. doo Macky Sall xuloowul xeexul kon nag nañu delloo si xëy na delloo seen kër yi ñu bàyyi ñuy def ñu dem liggéeyi parce que liggéey rek moo la mën a taral taral say way juuf mhm. mais du lii nii loolu amul lu may wax asalaamaaleykum jërëjëf merci merci merci merci merci euh, moom euh, pour son intervention di xaar yeneen ci 77 810 90 90 di numéro bi leen di may ngeen dugg ci waxtaan wi eh, bokk ko ak yéen salaamaaleykum. waaleykum salaam bi na leen def maa bu wér fa ñu woowee. Mm, maa ngi woowee ci ci eh, ah, ci. waxtaan wi. waaw maa ngi leen di ziar di rafetlu waxtaan bu baax. merci merci. Ah, di masawu bépp Sénégalais. Mhm. di wax ne réew moom. li li li kilifa gi waxoon rek maam Cheikh Ahmed Tidiane. mais xaw ma lu am may bi si siis allo. oui yow da nga ñuy déglu seen bi. mais nag xaw ma lu am may bi si siis am ci réew mi. Mhm. waaw ndax fii fii xaar yoon moom def yoon. Mhm. ah yii rek mm, moom dof la dof bu tëx la ah même baal na si bi sax. Mhm. waaw moom li ko neex rek la xam. léegi nag comme day def li ko neex. ah na bàyyi ñun tam ñu def li ñu neex rek waaw góor boobu di wax naan nag ki ko léegi yi dañ liggéey xale yi dañuy liggéey liggéey nañ ba sonn dañoo amul ndax li réew mi li bu baaxoon nag Macky Sall tay la nekk lii muy jox tubaab bi lii muy jox ay dënam ay goroom ak doomam ak jakaram waaw kon nag yii rek mooy am léegi nag ñu war a wax la ñuy wax ni gars yi di wax rek ku àttewul nag bi nga àtte fa lañ jëm nii nag te li am nii rek xoolal euh, bon signal la rek mais liy ñëw si kanam mooy gën a garaaw quoi. wallaahi ah, waaye sëñ bi dem loolu. ah non loolu mooy am. ba <laughs> xoolal cin bu feesee xoolal xoolal xam nga olof bi wax naan ko lu tax suuna. te boo yi ngay naqari ñu yaatu di dajale moom la ñuy wane ñu ñun tey xam nga da ci waxoon le 21 mars ñu ne mu ne couvre-feu la woon ak corona beeg yooyu noonu. pour ñu dee daal lu ko day day tax gars yi sëñ dañuy gën a ñàkk nag dañuy gën a révolté wu. yaa ngi dégg jàpp nañ ko ay nit duma leen ñeneen ñàkk seen alal seen ñenn ñi seen i parents tey mënuñ ko def ak ñeneen ak ñeneen ak ñu toog ba tey ñu ne leen naka mbaay loolu noonu procureur ay dossiers yooyu ñu waroon lijjanti noonu lijjanti wu ñu noonu topp yàlla jor bu sëg wecc koo xamante ni kaay indi poche nañu koy seeti kaay leen ñu xam ne loolu arrangé wul leen bon ñi fi nekk ne bu tëb di dal ni ñëpp dañoo xam ne ñoom état bi projet bi avancé wuñ leen ndax dafa am ñu nekkoon ci toog muy dox loolu jeex na Sénégal uh-huh. réew mi ñu neex mu naqari day soppee day jógee ci loxo yi loxo yi bu nekkoon ci ay loxo yu set ay góor yu set wecc yor réew mi ñëpp sant ci seen bopp waaw maa ngi jégalu nag li rafet na seen li tax seen nag xam nga ñëpp ku ci ñàkk sa alal uh-huh. képp ku ci béyee ñu si béyee ñu jaare seen i mbokk uh-huh. voilà di wax ne nag nañ leen ñaanal yàlla yaa ngi tee yàlla xaaral aljana quoi xam ci dëgg la ñu voilà jërëjëf Faye merci merci merci euh, di ko la moom mi doon woote di xaar keneen ci 77 810 90 90 maa ngi la lëmoo lëmoo Juice maa ngi lay maa ngi lay nuyuwaan ah, di la jaajëfal bu baax baax yaa ak Famara Badji Islam is peace la ah, ak Mamadou Diouf moo moo ànd fàttewuma la salaamaaleykum waaw ba yaa ngi ci jàmm sëñ bi yaa ngi ci jàmm wa alhamdulilah fa ñu woowee. maa ngi wootee Saint-Louis. Fambine. Ndar Ndar Ndar Saint-Louis. ah Saint-Louis j'ai cru que vous avez mhm. naka waa Ndar. waaw sant ñoo ngi sant yàlla bu baax. aja ah, bismillah ci waxtaan wi. waaw xam nga. Mhm. gis nga sa euh, président bi. Mhm. woote woon naa temps yële. ñu fekkee dafa am lu muy ragal. na woo Sonko toog. mu waxtaan ak moom lu ñu waxtaanee ñoom ñaar. ko tegalee lii laay la bu boobaa Sonko di mun naa def lii mais mun naa bàyyi dégg. mais gis tew kenn du ko gérer nii. mais gis nga xeex bi Macky Sall du si am mukk victoire tuñ <laughs> Sénégalais yi Sidi la ñu ñax mën a biyee. ñu <laughs> ne wax leen réew ab révolution ba koy defar. <laughs> réew ndaw ñi ñoo koy defar. du du Sonko moo moo Sonko moo wax de. Sidi la ñu ñax ma waxoon. moo ne réew mi foog mu am révolution révolution boobu Sénégal. man maa ngi am quarante cinq ans. mais man xam naa ne jël naa retraite maa ngi troisième âge. Uh-huh. ay doom laa yërëm xam nga uh-huh. am na ñoo xam ni pour ñu am lu ñu lekk foog ñu tàllal seen loxo. Uh-huh. am na ñoo xam ni pour ñu am lu lekk. foog ñu triandé. mais kenn lañ ko jàppee. parce que réew mi métti mi rek moo métti. mais xeex bii ñi ko war a xeex. ñoo ngi seen digg di toog génn ko ci si mbedd mi maa ngi la koy waatal billaahi wallaahi tallaahi yàlla xam na. duñ ko war a xeex une semaine lañ koy xeex. xeex bi jeex dàq ñoo ngi toog na lu jàpp jàpp suñu xeexaguñu. te mu ngi pat di seetaan justice bii mhm. justice bii fan lay mujjee Sonko boobaa ci la Macky Sall di xam lépp dëgg billaahi wallaahi taala mhm. du du ñu génnee ba toog ci kaw tali bii li ñu fiy tax a jóge mooy Macky Sall génn réew ah espérons que duñ fa àgg <laughs> espérons que espérons fa àgg sëriñ wax nañu ba sonn mhm. sëriñ wax ñoo Macky Sall ba. ba mm-hmm. fekk ay kilifa lañ lu ñuy wax suuf lañ koy wax. Mm-hmm. mais booy waxul suuf ñun la waaw mais du génne def leneen. askan bi dem nañ fa xam ni sëriñ si ñoo ngi wax guddi ñoo ngi wax bëccëg leen rek moo leen dese def déclaration. Mm-hmm. wax ni waa jii ñoo ngi wax ak moom nanguwul dégg li ngay wax askan bi yéen a ngoog réew maa ngoog. seen avenir ngoog. waa xeex bu jeex. d'accord. te du tàkk kenn du si dee. du mhm. du waa Saint-Louis di génn nii toog si kaw tali bi. Mhm. waa Thiès génn toog si kaw tali bi waa Dakar génn toog si kaw tali bi lépp bloqué wu armée bi jaar si diggu réew mhm. dem jël palais bi te mbir bi jeexee du dee. population bi yëpp génne armée bi dem jël palais bi. jërëjëf waay bi. d'accord merci merci. Euh, di ko jaajëfal di xaar keneen ci 77 810 90 90 ba léegi ca Sigicoor nag Ah, mbir maa ngay wéy donte naaj ba tàng na fa nag naaj bi tàng na fa naaj bi tàng na fa mais vraiment ba léegi ah, jàmmarloo yi mu ngi am mais eh, alhamdulilah vraiment eh, li nga xamante ne moom lañ fa jotagum comme information amul vraiment une autre perte de vie une autre perte eh, en vie humaine donc loolu itam ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy ñoo ngi koy rafetlu mais ba léegi itam am na koñ yi nga xamante ne vraiment manifesté yi sax xaw na fa xaw na fa wàññeeku mais ba léegi ndaw fa nekkoon démb rek fa ñu nekkaat du ñu may euh, ñi nga xamante ne ñoo di takk der ñuy jege wala sax di euh, xaw a wetu kër Ousmane Sonko voilà salaamaaleykum. waaw waaleykum ñu ngi siyaare bu baax a baax a baax. fa ñu woowee. ah fan ci. Amérique du Nord. Amérique. waaw. ñëpp a ngi si jàmm kay alhamdulilah. xanaa a ngi doxal. jaaxle ci suñu. waaw ñëpp ñu ngi doxal waaw xanaa jaaxle ci réew mi rek. Mm-hmm. wallaahi di ñaawlu tam li fi li xew rek. Mm-hmm. waaw wax dëgg yàlla gënal lu ñu de nit ñi nekk ci àll bi de duñ melaw guddi. li mm-hmm. fi président Macky Sall toogee daal ba léegi. da ngay yendoo liggéey bu ngoon jotee nga war a dem sa kër war a nelaw doo nelaw. waaw léegi nag man dama jàpp ne comme fi nii Eh, xeex bu yegg si na fii. Uh-huh. man dañ ko war a continer rek. Uh-huh. boo ko defee Macky Sall xam ne nit ñi duñ ay jaam ay nit lañ te ay gor lañ ñu gore jàppale ko wootal ko mu gañe réew mi. Uh-huh. mais douze ans yi mu fi def yëpp daal loolu yàlla xam ne ne may jàmm daal. waaw ndax doo gisee ñu bëri ñu ngi naan président Sidna Ousmane na wóy ji. Euh, maanaam peut moom itam dafa am lu wax ndax moom nee justice bi. Uh-huh. Euh, dossier euh, soxna euh, kii nu mu tuddati sax te mu gaañu woon Kër Massar. Mariama Sagna yàlla na ko yàlla yërëm te xare ko aljanna. amiin amiin léegi mu ne dossier boobu noonu ba léegi kenn waxu ci ak yeneen dossier yu def plainte yu mu def kenn waxu ci léegi nag mu ne kon justice bi léegi moom. moom lu lu lu ko ñor daal mooy lu ñu ko lu ñuy topp Ousmane Sonko waaye Ousmane Sonko daal ku muy topp moom faale ko kon moom lu si si di wax dootu loolu moo andi wax ji. Uh-huh. ñi ñi koy wax na naan na dem wéy ji nañ xool tey jii lii nga xamante ni moom moo dal soxna Mariama Sagne. Uh-huh. nañ jël seen rakk bu jigéen teg ko ci place soxna Mariama Sagne. nañ jël seen ya seen yaay seen wéy jur bu jigéen ci lox ci ci muy nekk place Mariama Sadio uh-huh. nga xam ne dinañ ko buyal ba pare rey ko loolu lan moo ko gën a naqari lan moo ko gën a métti ah neexul de vraiment neexul moom est-ce ñuy wax duñu xool ci ci jafe-jafe yi di teg président si da Ousmane duñ ko xool ñoom dañuy xool rek li Ousmane Sonko la ñuy xool léegi ne nit mën naa wóor ci loolu mel ni Ousmane Sonko doomu malien la wala doomu Burkina Faso uh-huh. ab Sénégalais la uh-huh. kon nag le combat day continuer ndaw yi nag maa ngi leen di ñaan xeex bi buñ ko jëmale ci takk der yi buñ jëmale ci yàq yàq alalu jàmbur. Ah. civil bi mooy ñi nga xamante ni ñooy Benno Bokk Yaakaar yi nga xam ne ñoo ñuy tooñ chaque jour ñoo ñuy tooñ ñoo dugg si télé di saaga lu nekk ñu def ko nit ñi respecté wuñ askan wi respecté wuñ kilifa yi diine yi buñ leen ñaanee duñ duñ leen may léegi nag li ñu ñaan kenn lu ñaan nañu seetaan ak ñoom. Hmm. ñu ñu ñu ñu jàkkaarloo ak ñoom police yi nag buñ leen defati dara. Hmm. police yi nañ bàyyi xale yi ñuy rey. d'accord nañ bàyyi xale yi bu fekkee ne dafa am ñu leen rax nañ leen nañu wane ñu leen rax ñu ñu fekk ñu jëflante ko ak ñoom. Mhm. ak nu réew moom ak waa benn boo ko yaakaaree ñoom ñoom lañ war a jàmmaar lool ñoom ñooy sébali. mais pas ay ay ay bitik ak ay affaire jàpp yàpp yu alal yi askan <laughs> yi moom. ndax ñu toll nañ jëflante ak ñoom. merci merci merci. merci di ko di ko d'accord merci merci beaucoup merci di ko jaajëfal bu baax a baax def United maa ngi lay maa ngi lay nuyu Modou Fall ba baax Amadou ña euh, ngi lay nuyu Lemon Joyce ña euh, ngi lay jaajëfal da baax Gaye euh, Baye Zal Ndiaye ñu ngi lay jaajëfal Famara Badji Dacosta Moïse Euh, Islam Peace euh, Mamadou Adiouf euh, Amadou ñu ngi lay jaajëfal vraiment message yi bëri na Abdourahmane Ba fàttewuma leen naa Nafa fàttewuma leen itam ak ñëpp ñi nga xamante ne vraiment ñoo ngi doon envoyé ay message xam naa si kanam dañuy dañuy dellu si waat ginnaaw bi nga xamante ne vriment yàgg nañ ci antenne bi loolu dañuy marqué benn pause bu ndaw en régie ñu marqué benn pause bu ndaw après si kanam ñu dellu si waat wéyal waxtaan wi ak yéen merci.